assemblée hospitalisé ko. moo koy jël cent pour cent assemblée koy. exact dégg bu dee da nga am problème mu bëñ wala bët. Ah. wala gannaaw bi métti nga dem ñu ñu ñu ñu kinésithérapeute mu ah. fajal la ko quatre-vingts pour cent yi assemblée koy fay. dégg nga yow vingt pour cent yi ngay fay kon problème mu ñàkk xaalis. boobu wax du lay. dëgg la daanu moo ko. deuxième chose man ci wàllu diine nee na damaa benn ilimaan mu ne loolu mën nga ko def maanaam mën ngaa dem xale yu jigéen di la bësal sa ginnaaw. Hmm. du leen wax mukk ban ilimaan a ko wax. benn gis nga salon de beauté woowu soo ko wekk woon yóbbu ko Tuubaa ko ma boo koy teg murid yi taal ko sëñ Muntaxa da koy tere mhm. soo ko yóbboon mu tere ko soo ko yóbboon Tayba ñu tere ko auberge parce que loolu dafa baaxul auberge la auberge la dégg nga loolu mooy benn kon faju faj faju yóbbu ko parce que ñun duñ faj mhm. mu ne dañ maa complot mhm. mu ne kan ñu ne ko kan moo la complot mu ne Macky Sall Antoine Diome sëñ ah. Bassirou Guèye ah. Salma maag yow ak ñoom sow ak maas mm-hmm. ak sama jëlab mm-hmm. daanu faatu yàlla duñu duñu laaj sonk ba mu jóg këram guddi ah. àndut ak sëfoor ah. mm-hmm. tàgguwut gàddu ko ah. tàgguwut jabar àndut ak gàddu ko te foo ko seen ay ponk la koy wër mais mën na daw jamonoy couvre-feu jamonoy covid billaay andiwaat leen seen xel yi kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo boobu nga xamante ne benn live la bu Kaliphone def ba noppi teg ci ay kaddu ki nga xamante ne mooy Moustapha Diakhaté je crois que muy ay kaddu yu am solo yoo xamante ne képp kuy sénégalais nga yeewoo Sénégal je crois que war nga ci mën a bàyyi xel ci lépp loo xamante ni tey ñenn ñi ñu ngi koy def ci plateau yi taxaw di ko wax seetuñu yàlla seetuñu yonent bi seetuñu seen njaboot seetuñu askan bi te ñoom ci seen bopp xam nañ la ñuy wax ñoom gëmuñu ko mais tey bëgg nañu gëmloo askan bi leen ci benn wax boo xamante ni du dëgg safaa woon nag dëgg tey nag dama bëgg a laaj te ndax Sénégal jamono joo xamante ni dañu bëgg a Sénégal teg ko ci wàllu fen ba nga xamante ni képp koo xamante ni da ngay wax lu safaanoog dëgg yow la ñu war a gëm képp koo xamante ni yaa wax dëgg ñu jël dëgg bi teg ko fële pour lan ci seen intérêt lan ci benn rancune pour lan ci benn vengeance en tout cas ku dégg kàddu Moustapha Diakhaté yi daal nga xam ne ni que jamono ji coow li li muy bëree bëree bëri yëpp yaa téeméeri dossiers yoo xamante ni tey ñi ngi ci kanamu justice ñaata nit ñoo porté plainte mais Adji Sarr Ousmane Sonko rek nekkuñu Sénégal am nañu leneen lu ñu tal lu dul lool Adji Sarr porté na plainte kii di Ousmane Sonko juge bi convoqué na ñi mu war a déglu mi ngi leen di déglu kon yaakaar naa ne du askan bi ñooy naan ki la ñu war a woo wala kël la ñu war nañu toog ba ñu war leen woo suñ leen waree jugé ñu jugé leen suñ leen warul jugé ñu dem suñ yoon je crois que on a des choses plus importantes que Adji Sarr Ousmane Sonko gars yi nekk ci plateau yi di polluer l'atmosphère juge ba la muy def yaakaar naa ni dégluwul Seydina Tange Tandian dégluwul Kaay Fof lu muy def dégluwul euh, Kaliphone lu muy def dégluwul Moustapha Diakhaté xëy na ku ci nekk da nga yor sa argument di ko jox ndaxte ñi ngi manipuler peuple bi te ñun nee naa leen journal People nekkee fi dara lu dul leeral askan bi lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu manipulation ñuy utiliser xel par xel benn par benn di ko décortiquer ndaxte ñun nekk lu ñu fi ma sàmb nekkuñu fi ma ba kenn lañu fi nekkal muy yàlla suñu borom moom mi moom dëgg te dëgg jooju la ñuy défendre ci barke weeru koor gii ñu nekk. Toujours dans votre journal People à la présentation Seydina Tange Tandian mu Serigne Saliou sur le canal 33 Leral TV dama bëgg ñu déglu ci kàddu yi nga xamante ne Aïssatou Diop Fall nekk foofu ca TFM def na ko muy ay analyse am yu mu defoon nañu déglu Aïssatou Diop Fall dellu si waat. dama bëgg comme yow tout le yi am xel laay waxal waxumaat ay taalibe Seydina Ousmane Sonko mu sell mi et ay proche waxumaat ñooñu ñi may waxal. te ñi ngi may dégg ndax li tax dégg ma mooy gis naa ne beaucoup de gens ñu ngi jël recul quand di xaar euh, Bercy bi nar a am fële euh, Youssou def na Bercy mais bu rëy bi tribunal la nar a amee parce que de quoi il s'agit audio yi euh, ñu ngi koy doogoo publier mais ku nekk fii yàgg nga dégg te bruit bi yàgg nañu ko dégg ba ojo yi amee ñu déglu ko man déglu naa ko dégluwaat naa ko ni ko ñëpp euh, dégloo Mamour Diallo lañ ne moo ci wax euh, ak euh, Adji Sarr ak ay nit ñu nekk foofu man ban enseignement laa ci tiire premièrement et ça c'est conviction bien que maa ngi jël précaution langage d'usage pour man voix boobu kooku Mamour Diallo la c'est bien Mamour man dama gëm ne c'est bien Mamour Diallo. donc ay audio yu certifié. man gëm naa ko ba keroog nag ñu am une preuve du contraire mais man gëm naa ne. effectivement c'est Mamour Diallo mais. kon kay ñu déglu bi complot ñuy wax. ci laa ñëw ñu ñu déglu bu baax ñëpp déglu ojo yi ah. li Mamour Diallo wax Mamour Diallo d'abord kenn dégg ko mu tudd benn yoon Sonko benn Mamour Diallo dafa ne papa buy wax ak doomam doomoo ko di wax ne di ko eh, wax wax na sax loo xam ne ci biir wax ji nee na ko wax na ko ñaar yoo xam ne enseignement yu doy waar nee na ko ki la teg lii la teg ba lii dal la man duma la bàyyi mukk duma la abandonné dinaa la jàppale nangam naa parce que jigéen nga xale nga nangam naa wax na ko loolu wax na ko nee na ki la teg la teg lii la dal ki la ko teg ba nga nekk ci situation yii et cetera et cetera ñëpp yoon nañu ubbi beneen bi nee na ko aji fii nga toll état du Sénégal mënu la jox passeport diplomatique parce que y un procès xam nga loolu bu taxawee foofu déjà déggoo fa dara loo xam ni ak di dina teesu complot xam nga complot mooy lan ñaar ni ñu combine bëri pour daan kenn déggoo ko fa tudd fa kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni analyse bi nga xamante ni sutu Diop Fall def na ko te nee na ñu am xel la bëgg ñu déglu ko comme ni ma koy waxee saa nee rek man sénégalais yu am xel laa bëgg a waxal sénégalais yoo xamante ni dañuy xalaat waxuma ak nag ñoo xamante ni xar moo leen gën ci kër waxuma nag ñoo xamante ni xol la ñuy dégloo lu ñu dégloo xel ndaxte yàlla daf ñu may xel pour ñu koy xalaatee amaana Seydina Tange Tandian lépp lu mu wax te yàlla mayu la xel nga jël xel boobu déglu ko su yenoo maanaa di nga xam ne lii yenu na maanaa su yenuwul maanaa nga xam ne lii yenuwul maanaa kon yaakaar naa ni affaire audio bii ñu bëgg a jël pour won ko askan bi yor ko ci plateau yi Dame di ko defee waree plateau yëpp Baara di ko waree plateau yëpp kay foofu di ko live ñenn ñi di invité nit ñi di créer victoire je crois que am na lu ko gën a gaaw def ngeen defu leen dem leen procès moo ëpp njëriñ loolu ndaxte audio yi ngeen di wax nii audio yi bañ ko dalee dégg xaw ma depuis kañ la depuis Adji Sarr ba mu nekkee ci ay problème gars yi di ko menacé muy daw gauche ak droite di làqatu ba keroog état di wut ay élément bi ñu koy garder je crois que Adji Sarr aussi sénégalaise la tey da ngeen amoon benn système d' intimidation ba nga xamante ni képp ku wax ci Ousmane Sonko nañ ko menacé nañ ko tiital nañ ko xoqatal Mamour Diallo nag en tant que sénégalais tey sans de bonne guerre Ousmane Sonko jiñ ko problème mu 94 milliards alors que ñoom ñaar ñu taqe woon ci laale ci kon tey su gisee koo xamante ni victime la su ko neexee tey mu ñëw taxaw wax ci dégg naa ci benn kàddu boo xamante ni Dame wax na ko nee na dix-septième ak dix-huitième minute bi bi Mamour Diallo waxee ñëpp nañu génn ma taalal la clim wala ma taalal la ventilo pour wax la rek xalaat bu ñaaw na ko ko koy amee Mamour Diallo lu mu dof dof dof dof bëgg a ak Adji Sarr xanaa du ñëw mbooloo ñëpp nekk ci biir saal ba ñëpp toog mu wax ak ñëpp ba pare ne génn leen damay tëjoog Adji Sarr ba pare bëgg a séq moom je crois que loolu waxi dof la waxi ku yenu la tey ma nee instituteur la maanaam jàngalekat la damay naan est-ce que jàngalekat boobu ñuy wax raisonnement est-ce que dëgg la ci moom ndaxte nit da ngay mature ba pare soo ko toog ci plateau yi di wax tey plateau bi nga toog boobu di wax yaa ngi koy wax loo xamante ni yow leer na la yow toog ak pare bëgg a séq ak Adji Sarr xanaa Adji am na dignité nga taxawaat encore ci télévision di saaga Adji naan lan la moom foofu ma taalal la clim wala ma taalal la ventilo loolu soo ko bëggoon xam da ngay dem fekkee ji ko ndaxte maître Clédor Ciré Ly am na audio boo xamante ni tegal nañ ko ko te ma ngi cay wax ba décrire ni que seen awra euh, kii nga xamante moom la ñu tuumaal di Ousmane Sonko nu mu mel et pourtant kenn ci yéen taxul ci benn plateau yéeg ci yàbbi ci tey damay laajte ndax yéen ngeen fi nekkal wala da ngeen nekk benn parti pris tey su dee wax dëgg yàlla fi nekkal dëgg ni commenté ci audio Mamour Diallo bi ak Adji Sarr commenté loolu ma noonu ci audio bii ma leen di tegal muy diggante Maître Clédor Ciré Ly ak kii nga xamante ni mooy euh, li mu doon wax ci Ousmane Sonko d'après li ñu wax gum nañ déglu ci audio bi. laal na ko laal na ko mais mais c'est pas vrai laal na ko mais mais waxagul li quoi man mais laal na ko moom kay il reconnaît que laal ndaw si dafa décrire ko yi ba wane sax wax benn affaire sax bu am nekk ci benn xuuru xuur droite bi si si testicule bi ndaw si kay lépp la la décrire non moom laal laal na ko plusieurs fois ci laal na ko ci suufu douche bi laal na ko fu nekkee ban dem ba sodomiser ko sax hein bon moom kay loolu du bàyyi moo tax moo tax nee de parler il kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo audio bii nga xamante ni ñu ngi naan avocat bi moo koy wax te génn na bu yàgg mook audio Mamour Diallo bi lañ doon déggandoo te ba tey jii dégguñu leen benn yoon ngeen yéey ci yàbbi ci ngeen wax ci parce que ki mu laal da ngeen ko jógee est ce que yéen tey askan bi war nañu basé wu ci yéen ay nit yuy wax dëgg ngeen est ce que askan bi mën nañu basé wu ci yéen que yéen li ngeen di wax yàlla moo tax ngeen koy wax su dee yàlla moo tax ngeen di nee naa leen Mamour Diallo de li mu wax a Adji Sarr moom la concerné avocat bi lu mu wax fii ci Sonko moom la concerné mais en tout cas askan bi ñu ngi ubbi seen bët di xaar li ci am solo mooy procès procès bi kan moo koy def muy le juge Maham Diallo juge Maham Diallo dégluwul audio bi dégluwul li kële wax en tout cas moom bi muy jot plainte ñi koy indi rapport di ko teg ci kaw taabalam muy def ay audition ci loolu lay basé wu te comme Ousmane Sonko jël na treize avocats lu toll ci fukki avocat ak ñett ti loo xamante ni non lié la wala dossier classé sans suite a ah, Sarr bi nga xamante ne amul ñaar wala ñetti avocat te nee nañu moom mooy victime bi moom moo waroon jël ay avocats yu bare je crois que ci loolu ngeen war a wax askan bi nag yéen laay waxal ngeen déglu ma xel te bañ maa dégloo xel affaire audio yii ñi leen di génneel di wax gauche ak ku ci nekk di ci génn ay intérêt la te amaana audio bii ñu génnee ak lañ ci génnee ka ko génnee daf ci génnee la ko arrangé tout simplement mais audio intégralité bi bés bu ñu leen ko génnee nee naa leen yuuxu dina jëpp fi ñu ko fekkewul woon yuuxu dina jib fuñ ko foogeewul woon ndaxte ko ko génnee xool na li ko ci intéressé génnee na ko ci mais xamul ni ko audio boobu mu enregistré am na intégralité totale boo xamante ni lépp bëgg ci te bët buñ ko génnee moom ay kàddoom yene woon ci biir su génnee lan lay wax waa koñ ba lan lay wax waa koñ ba je crois que alalu àdduna jaru ko politique jaru ko Adji Sarr ku tudd Ousmane Sonko la accusé accusé wul Seydina Tange Tandian accusé wul Massamba Ndiaye accusé wul Ismaïla Sagna accusé wul président Macky Sall accusé wul Moustapha Diakhaté accusé wul keneen Ousmane Sonko la accusé accusé wul Dame Mbodj wul Bara Ndiaye accusé wul Kay Fof kon yaakaar naa ni am ngeen lu leen doy këll ku ci nekk am na lu ko doy ci biir këram mu toog dem li jënti ko ak lu ñor askan bi mu taxaw wax ci su dee mënoo ci wax dëgg ndaxte yàlla dafa nee dëgg su teewee ba nga xam te ni mënoo ko wax su yeboo na nga maandu je crois que il est que sénégalais yi noppalu bàyyi seen procès yi def procès yi du ci télévision yi procès yi du ci rajo yi procès yi du ci réseaux sociaux yi procès bi mooy fi ko ay soti job waaxat waxee ca biir tribunal boobu la Ousmane Sonko mooy taxaw Aïssatou Diop Fall mooy taxaw fukki avocat ak ñett ñooy taxaw avocat Adji Sarr ñooy taxaw juge bi question lay laaj Ousmane Sonko ak Adji Sarr est-ce que mës ngeen séq dara wala mësu leen séq dara mës ngeen séq dara d'accord ba ngeen koy séq est-ce que neexoon na Adji Sarr wala neexul woon Adji Sarr loolu lay juge bi def su dee neexoon na Adji Sarr ñu prouver ko naka la ko neexee su dee neexul woon Adji Sarr ñu prouver ko juge bi ci loolu lay dox te je crois que yooyu yëpp Ousmane Sonko xam na ni benn arrangé wu ko ci ndaxte tey bés bu demee ba taxaw ci kanamu tribunal ñëpp taxaw ñu ne ndax séq nga ak Adji mu ne séq naa ak Adji Sarr même su dee consentement am na viole amul tey Ousmane Sonko dafa yor ñaari jabar bàyyi leen dem di tëddak beneen xale su dee loolu am na. donc loolu loolu daf ko daf ko condamné par adultère ndaxte da nga am ñaari jabar pare dem di sëy koo xamante ni du sa jabar loolu adultère la Ousmane Sonko day ragal lool. ba ca topp encore mu dem ca salon de massage bi nga xamante ni déclaré na Sénégal yëpp que kii salon bu ñuy fajoo la salon thérapeutique la kon tey su demee ba séq fëg nit massage ba sëy am seen diggante ci biir tey complicité la si loo xamante ni tey loi da koy tere ndaxte foofu defuñu ko auberge foo xamante ni dañ fa war a sëy ak nit donc beneen complicité am na fa muy beneen délit boo xamante ni tey Ousmane Sonko loolu da koy ragal encore ma waxal lan encore mooy lan tey encore su ñu demee ba ci biir complicité de violation bu leen fàtte ni couvre-feu lañ nekkoon vingt une heures ñu ne ñëpp Ousmane Sonko tey di représenté ci Sénégal ne dama bëgg a nekk président kon su ñu demee ba Covid am ñu tëjloo ñëpp Ousmane Sonko su rombee fenn foo xamante ni dafa ubbi moom dafa war a dénoncer loolu pour ñu tëj ko moom tey su nekkee ci complicité boobu je crois que loolu lay juge bi di xool mais xoolul audio Mamour Diallo lii la wax de xoolul Seydina Tange Tandian wax na si journal People Ousmane Sonko nangam sangam de xoolul ni Aïssatou Diop Fall lii wax xoolul ni Dame Mbodj lii la ni Kay Fof loolu la wax donc crois que li ngeen di def c'est peine perdue essayer de manipuler le peuple comme ni ma leen ko waxee daal projet bi ñaar la concerné Adji Raby Sarr Ousmane Sonko yoonu ma Samba nekku ci yoonu ma Demba nekku ci ñoom la ak juge bi donc ñun lu ñuy def nii rek dañ ciy joxe suñuy argument mais c'est pas la peine que ngeen di yëkkati toujours ay éléments de force yoo xamante ni da koy tegal askan bi ndaxte dafa am ñoo xamante ni seen jàng sorewul tey lép lu ñu dégg ci réseaux sociaux foog nañu dëgg la ñun nag yàlla suñu mayee kattan ak mën-mën ñi mën a toog ci plateau di wax ba nit ñi dañu déglu je crois que dëgg boobu suñu taxawul tey jox askan bi ëllëg ak ci biir dinañu layoo suñu borom ndaxte complice lañu woon waxte waruñu woon toog fii ba nit ñi dugg ci ay góote ñu ne xamoon nañ ko te alors que mënoon nañ leen alerter liñ ci mën mooy la mën a wax danañ leen ko wax lu waay bëgg a gëm na ko gëm lu waay bëggul gëm bu mu ko gëm mais ëllëg ak ci biir dinañ xam ne ñun la ñu waroon def warloo nañu nañu déglu ci bi ci wax te pourtant bi commenté wu leen ci xam nga ñun luñ ko doon amal moo ëpp lii taa comprendre ñun vidéo bi xamante ne tout nuit lañ ko doon amal ndax ñun lu nekk sekk nañ ko am moom surtout man première fois muy teg tànkam si cabine bi maa ko njëkkee laal yaa ngi comprendre mu visité cabine bi ndax amul caméra surveillance ne ko noonu comprendre nga vidéo bi tout bu leer nan bu leer nañ lañ ko doon amal mais amul sens pour yàq man pour man pour yàq àdduna est-ce que su ma amee xaalis boobu dinaa nekk en ligne est-ce que ndax dina ma mën a njëriñ loolu noonu yëpp xalaat naa ko te yàlla baax na nag lu jot rek yomb sant yàlla kon ko moo gën démb rek mooy loolu yàlla vraiment ma ko ko dal vraiment. ba ma ñëw ci sama cabine man la njëkkee man man toujours mu laaj ma dafa ba sama copine da koy mujjee nëbb man fu ma nekk c'est le jour. man instant boobu yoruma woon numéro téléphone am comprendre nga moom moo laajte sama numéro man yoruma woon numéro téléphone am. pour ma am ko sax c'est tout un problème ndax sama copine bu nekkoon suñ diggante affaire yi dafa naroon métti lu lu jot daal yomb waaw mais am naa tamit yeneen contact yeneen ak yeneen yoo xamante ne mooy loolu de soo paree ma téléphone. ma affaire yi man Mia Kia ñoo ko xam ñun trois yi Mia mooy ki wax ni sama copine bi xam na ko Ousmane Sonko maa ko entré man ak Kia ñoo ko maasandoo man ak Kia maasa nañ ko plus de trois fois. tu vois ba ki Kian mu déménagé wu muy ñëw foofu après bu mu déménagé waat laa xamatul fu mu ne yóbbu nañu Kia prison Kia génn déménagé wu mu dem foofu jour boobu tamit mbëkkantañu na fa ñu may naa ne muy lay ci fekk moom muy génn man may dugg. muy ñëw xam nga lan lay solo day solo. Mouhamed tey rek maa ngi koy wax xaw ma loola temps yëpp tuuru Ousmane Sonko jugul sama gémmiñ affaire yi daa nekk di xalaat di xalaataat billaay wallaay tallaay ça fait 4 jugul sama gémmiñ. billaay ma ne kii ma xam ay ma xool ay temps su ma defoon luñ ma waxoon instant bii mooy loolu non gëwuma ko gëwuma ko parce que moom sama sama copine bi ci ci cabinam kese la doon dem te nekkoon dañuy gars yi dañoo dem ba naan du rek kii piège ko sa xoolal lii la ko fi jar tamit force ay xale ji kese doon dem te nekkoon dañu gars yi dañoo dem ba naan du rek kii piège ko so xoolal lii la moo ko fi jaar tamit force ay xale jigéen bañ la yàkkal sa carrière dama joom bi dama joom dama joom ba xaw ma man lan laay wax quoi mais lii la moo ko fi lan tamit dara loolu muy ñun lii lañ ko doon bañal yàq viom kon yaakaar naa ni ñoo déglondoo kaddu yi nga xamante ni Adji Sarr yëkkati na ko wax ko yaakaar naa ne tey man Seydina Tange Tandian mi demul suite boti kenn tuddu fa sama tur yow Dame Mbodj mi demul suite boti kenn tuddu fa sa tur yow Baara Ndiaye mi demul suite boti kenn tuddu fa sa tur yow Barthélémy Dias mi demul suite boti kenn tuddu fa sa tur yow Bougane Gueye Dany mi demul suite boti kenn tuddu fa sa tur ki dem suite boti mi ngi tudd Ousmane Sonko di leaderu Pastef ñin ñi jàppee ko dina Ousmane mu sell mi ku sell nag yaakaar naa ni ak na yoo xamante ni war nga ko jombale sa bopp yàlla nag mën nga ko foog ni mën nga ko nax alors que yaa ngi nax sa bopp tey Adji Sarr lu mu wax dafa leer nañ ba mu duggee ci kabin bi moom moo ko njëkk a maasee toute nue toute nue maanaam su ngeen ko déggee tout nue nue maanaam solo dara dara dara dara dara da nga ko ci kaw ba ci suuf ana tey kër Touré bu xewaloo bi def reportage am jël nit ki sëggal ko ci chaise yëkkati yére bi ne nii la doon yëkkatee yéreem man maa ko doon maase tey lan ngay wax waa koñ ba Babacar Touré ana dof boobu nga xamante ne Mollah Morgun nga xamante ne day tox yàmbaa suba ba ngoon guddeeg ba cëg ba du xam boppam fu mu taxaw taxaw di def live ne maillot Marseille bi la yëkkati capuchon bi la yëkkati est-ce a ko fekkee ndeyu mbind li li nekkoon ci biir cabinam décrire cabinam lu mu mel ka ko fa fekk mu ne caméra de surveillance yi ngeen taxaw tey bëgg a def procès bi je crois que ñàkk mandu la njëkk commencé tey su dee li ngeen di woote dëgg la ci yéen te xam ngeen yéen a ci dëgg ki ko ki ñuy séqal ba léegi taxawagul ne benn yoon man xaw ma Adji Sarr taxawagul benn yoon ba mu ne musuma séq ak Adji Sarr nangam sangam viol bi ñu may wax rek violé ma moo xam nag naka lañ ko séqee mais nañu dem ci yoon séq nañ ko séquñu ko ak ban manière lañ ko séqee ak lu tax mu bàyyi këram ak lu tax mu wax nit ñi que moom dafa demoon faju ji alors du faju message thérapeutique moo ko yëkkati je crois que tey vidéo yi ak ngeen di def guerre on tellement de audio yoo xamante ne tey waroon ngeen ci mën a focaliser wu mos leen ci focaliser wu Dame maa ngi lay ñaan sa prochain plateau nga defal ma sortie ci audio bii nga wax ma ndax authentifié na wala authentifié wul Baara Ndiaye maa ngi lay ñaan nga defal ma sorti ci audio bii euh, nu mu tudd Abdou Karim Gueye nitu dëgg nga defal leen ma sorti ci genre vidéo bi Kay Fof defal ma émission live ci genre vidéo bi alors que askan bi nañu dégloon teeg xel te bañ dégloon teeg xol Adji saar ak Ousmane Sonko la ñu séq ñoom ñaar ñoo ko séq yoonu ma Samba nekku ci yoonu ma dem Demba nekku ci Adji Sarr yóbbu na ko ci yoon yoon da leen di atte Adji Sarr su bëggee retirer plainte am suba da koy retirer ndaxte moom la concerne je crois que jarul coow jarul nangam li des mooy ñu respecté Sénégal xam nañu que le Sénégal ne se limite pas Ousmane Sonko ak Adji Sarr am nañu yeneen priorité yu ñu gën a mën a lijjanti que nekk ci Adji Adji Sarr Ousmane Sonko quant à nag su ngeen bëggee utiliser arme bi de guerre def ko genre guerre médiatique nekk ci réseaux sociaux yi suba ngoon guddeeg bëccëg bëgg a manipuler peuple bi alors que ñun ñu xam dëgg dañuy jàmmaarloog yéen pour askan bi mais du question ni que dossier Adji Sarr moo ñu intéressé du question Ousmane Sonko moo ñu intéressé mais pour askan bi ngeen bëgg a léeree ëllëg ak ci biir ñi xam fan la dëgg féetee mais la nekk ci biir non lieu wala classé sans suite je crois que coow li war na jeex ku nekk war nga toog sa kër ba keroog juge bi di la woo su la woowee ñu entendre leen ñu def ko procès li yoon may ku nekk mu jël je crois que foofu la ñu toll tey manipulation bi dafa bëri ñii nekk ci réseaux sociaux yi ñu leen di jox ay cër muy euh, Mollah Morgan di mu leen koy wax ku ko déglu da nga amul loo def parce que tey su amoon lu mu def wala réussir ci àdduna du daw Sénégal dem toogee ji fale ñaata at déggu leen moom laa mërgën lan la réussir ci rap ba rap bi commencé dox tuuti première opportunité bu mu njëkkam xaaral ma wut visa comme génn naa xaarama ma toog tey su amoon këyit mi ngi ñëw Sénégal tey toog di def live réseaux sociaux suba ngoon te guddeeg bëccëg nga nekk ci di wax loo xamante ni maîtriser woo ko xamoo ko fekkee woo ko lu dul wax nañ ma wax nañ ma wax nañ ma barki démb nga accusé Bougane Gueye Dany fii Babacar Touré xewaloo yéen bokk benn camp mu ñëw taxaw demantir la Mollah Morgun yéen ci seen biir da ngeen déggoowul seen biir parce que dañ leen di utiliser parfois ñu woo leen waxal liw nga ne xaaral ma wut bës xaaral ñu tudd ma bës soo koy wut da nga koy wut ci loo xamante ni lu dëggu la wala lu tegu ndaxte teewul Ousmane Sonko Adji Sarr su fayee mbaa dinañ leen dégg déggati comme ci moom ngeen def euh, fond de commerce ndaxte tey ku ci def live yaa ngi bëgg ñëpp di la seetaan nga jël affaire bi dugal ko YouTube xaar YouTube lu mu lay fay je crois que war ngeen wuti beneen liggéey ak beneen xam nekk di ay fen ak loo xamante ni du dëgg safaan dëgg ngeen bëgg ko tegal en tout cas askan bi dañoo yeewu ñi waroon yeewu yeewu nañu ñu yeewul woon toogoon nañ ba benn instant nee nañ Seydina Tange Tandian bañ la commencé déglu ba léegi ñi ngi commencé yeewu ñi ngi ubbi seen bët en tout cas li ma ci xam mooy lan Sénégal moo ñu ñor Sénégal moo ñu tax a jóg liggéeyu lu ñu Macky Sall liggéeyu lu ñu Ousmane Sonko liggéeyu lu ñu Bougane Gueye Dany Sénégal ñun ñoo ko moom ku fi yàlla tudd moom moo fiy nekk da nga fiy nekk sa mandat su jeexee kenn ku yàlla tudd moom moo fiy nekk mais Sénégal na wéy di nekk ci jàmm nekk ci dëgg ba nga xamante ni du doon dëkku rabel ba nga xamante ni du doon dëkk boo xamante ni dëkku vengeance la en tout cas nañ ci bàyyi xel bu baax a baax